production le Don King de l'arène le sauveur de la lutte sénégalaise dikkaat na ak ñun ci beneen affiche affiche bu nar doy waar diggante Reug Reug ak Sa Thiès hey combat de l'enfer combat de l'année muy am ce dimanche 5 mars 2023 ci arène mars la ñu wax deex est que combat bi duñ ko bëree planète Mars ndax coow li ci nekk combat bi le combat de tous les dangers diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk xaalisu lamb lañ liggéente Reug Papa Kane moom mi xam ni champion la ca MMA waaye tamit lutte simple champion la ca lutte avec frappe champion ca waaye ki nga xam ne moo di Sa Thiès kookoy doomi Double Less di rakk ci Balla Gaye ndaw combat bu doy waar lii production ànd ak Makan Mbeng daal di koy delloo ministre des mu di monsieur ba Diattara neex mooy dañ ñu koy may en direct fii ci Sénégal ansor bu mag bee def loolu mu di 1xBet bu dee bitim réew nag pay view lañ koy seetaane. Sandigal ak Sal Ndangelar yeneen combat yu bari yu kon daal euh, euh, rendez-vous ba daal dimanche la le 12 mars stade Iba Mar Diop. waaw rendez wu bi dimanche le 12 mars stade Iba Mar mais ñu ngi ciy woo ñëpp nag encore tey di féliciter suñu grand Makan Mbeng parce que bés bi ak promoteur yëpp bés bi réussir na trop te itam ñëpp a ci jàpp en tout cas surtout yéen kontaan nañu bu baax daal. jërëjëf président merci beaucoup. jërëjëf kookoy président production Sa Thiès a ngi noonu bot na ab sol yére bu ñu xaatim. gem boo waaw publicité waaw ñu ñu ñu dem publicité ñëwaat waaw. Ah, waaw Modou Lo moo dugg si xam nga. tay tay bis ni ñaan. bis bu rëy. ndeysaan bis bu rëy. <laughs> ay champion rek ñoo ciy feeñ. wallaay ndeysaan tay bis bee rëy. ah dëgg Modou Lo xam nga Boy Niang dafa ñëw. te ñoom ñaar ñoo war a bëre. wallaay. te Modou Lo nag mooy roi des arènes actuellement. Mm-hmm. moo tax moom duggam dafa am solo ci làmb. ndeysaan macha allah. xarañ loo comme ñu koy woowee dugg si na. di fàttali moom ak. combat. waaw. Euh, tax euh, tey. laay lay fu jàmm yendul bu ko fanaan. Boy Niang fu jàmm yendul bu ko hay Modou Lo. hay Boy Niang. hay Boy Niang. kii moo ñëw kii moo ñëw le 4 février 2006 ci làmb daje le 11 février 2006 mu dajeeg Alioune Seye 2. waay léegi la 14 mai 2006 mu dajeeg Serigne Diouf kii mooy Modou Lo ndeysaan moo jël roi des arènes le 28 juillet 2019 diggante ma ko mën seen waaye moo dajewoon ak Balla Gaye numéro 2 le 21 mars 2010 kii mooy Modou waaye moo dajewoon ak Eumeu Sène le 28 juillet 2019 kii mooy ma. Modou Lo xam nga nag da gën ci làmbu parce que amoon na fa combat ak Ama Baldé mais malheureusement à cause d'une blessure combat boobu mujjee avorté alors par la suite ki nga xamante ni moo di Ama jël beneen combat Modou Lo jamono ji Boy Niang na Boy Niang na Boy Niang na non lamb non lamb moo dekk lamb dekki lamb dafa dekki waaw ay ca jox ko dégg ko tey tey. xaalis saa booy waaw dañoo ñëw parce ñëw dañoo war a daje ko ñuy wax dëgg yàlla tey pour soutenir ah, nekk mbër comme ñëpp et puis tey mu nekk lamb joo xamante ni lamb ju mel nii am saison bi ci yaakaar xanaa ñaari ñuy bëri te ñaari ñi bu ñu bëree nga xam ne Modou dafa am lu kii ñi ndaanaan la mais maa ngi ñëpp di wax ñëpp ne maa ngi combat bi boobu ba léegi combat bi wax dëgg dafay yàqu rek mais maanaam fu dafa yàqu wala la waaw moo yàquwul mais affaire yi xam rek amatuñu woon dat mais promoteur bi moo ngi waxtaan ak gars yi ngi waaj a am dat man am naa yaakaar ne sax semaine bii di ñëw balaa moo jeex nañ ñëw ci gàmmu gi samedi le 11 incha allahu rabbi foofu ku ma fa dégg na ma massa maa ngi ñaan waa Fuladu ñëpp ñëw ci gàmmu gi musidɓe tedduɓe kadi eɓimi salmini on onon piiw kala mbiyo mbima e mbimami fulurde naaɓe mbimi salmino mena wa fulamu jugagol mare yetta gis gis nañula kay wala dafa ka dañma dégg wima dañma dégg wima wima télévision wa fuladu yaagino fulado naaɓe mi salmini on mi juurima on kala mbiyo mbimi e Buladu naaɓe piw mbiɗa ñaagi on garani gamma eh, soppuli assalamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf agogo ah, jërëjëf Modou Lo ngi noonu waaw ñoo ngi gërëm duwaa de Saana ngi noonu waa Père Saana suñu benn kilifa baax monsieur le député maire Abdoulaye Diop maire de Guinaw Rail suñu xarit ñu ngi ne mi ngi ñuy seetaan moom it xam nga tey pratiquement ñëpp dañu connecté wu fi nga xam moom mooy ITV monsieur le maire ñi ngi lay nuyu Abdoulaye Diop député maire ñi ngi lay nuyu suñu xarit ndeysaan Mamadi mm-hmm. Mohamed ndeysaan dañ naan bis bu rëy faaw ay champion feeñ tey bis bi moo ñu toll ndeysaan te mbir bu ko mbir tolloo mhm. ci mbir ma danoo war a wane seen bopp mhm. tey mbër yu mag yi danoo war a feeñ que lii bis bi lamb ji tey boo xoolee ni mu mel nga am ni dëgg-dëgg ni lamb daal mooy li nga xam ne moom mooy suñu sport national jëggaani wuñ ko jox ko moomal suñu bopp am na solo père Sada Bigué lamb suñu cosaan la jéggaane wuñu ko ñoo ko mooma suñu bopp dafa ànd ak culture ànd ak sport ànd ak lépp loo xamante ni dafa laaj àdday réew bi gis nga ko noonu Sa Thiès gis nga ko noonu Reug Reug juk ci seen i débat dépp Modou loo jóge fa la daw Boy Niang jóge fa la daw c'est le combat des mathématiciens diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 combat de mathématicien laa ko tuddee. ah combat mathématicien la. maa la ko wax. ah kon nag c'est vrai parce que aussi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da ngay calculer. Ah, ah. combat teg xel la. Ah, combat boobu combat teg xel lay doon. ndeysaan Mohamed combat boobu xam nga Boy Niang hmm. ci sa biir erreur ci lay bëre ak yow. Modou ci sa biir erreur lay bëre hmm. waaye daal combat lay doon boo xam ni. Hmm. tey ñaari mbër yi ni ñu fii jaay wane seen ñi ngi leen nuyu bu baax ak soxna Badiane Penda Gumbala madame Dieng ñi ngi leen nuyu depuis Mermoz ñi ngi seetaan ñoom it ñi ngi leen nuyu baax Ibrahima Dieng jàng si mboore bu rëm ba naaw ko Kañ ko am na solo Modou Lo Boy Niang ñëpp xam nañ ni c'est un combat royal avant tout euh, parce que Modou Lo jamono ji moo tee li ñuy tuddee roi des arènes war a tase ak Boy Niang bi nga xamante ni dafa génn ci une très belle victoire euh, devant Balla Gaye numéro 2 Euh, tey li nga xamante ni moom la desel waa Pikine euh, mooy euh, jëli couronne bi mais est-ce que dina yomb ak Modou bi nga xamante ni depuis un certain temps ngi nii bëriwul amoon na amoon na ci combat mais à cause de sa blessure taxoon mu jul bëre ak Ama Baldé donc mu mel ni day des ba tey ci biir Pikine war a tase ak Boy Niang Boy Niang bi nga xamante ni nee na ko keroog ba nga dooree ëmmat seen mu daanu jooy naa jooy yu métti te jooy yooyu danga ma ko war a fay Modou ne ko di nga jooyaat donc seen un boo xamante ni euh, combat bu am solo la ci diggante ñaari mbëri jamono ji ñu ngi chauffé li nga xamante ni euh, moo di arène nationale ci moment boobu ci diggu géew bi Sa ak Reug Reug ñu ngi def sa euh, seeni débat dépp Reug Reug dafa mel ni moom noppi na parce que tuuroo na ay gàllaajam ba laal na suuf jamono ji mel na ni noppi na Sa moom moo dese tuuti parce que gis nañ ni butéel yi ba tey jeexagul ci côté am mais ak lu ci mënti am dans un instant dinañu siffler ce grand combat entre Sa Thiès et Reug Reug un combat organisé par Gaston Production un combat entre deux champions Sa Thiès et Reug Reug. xam nga sànq ma gisee Sa Thiès dafay débat de a gis ko mu bot saak ba dama ni mais Sa Thiès ba à wala lan lu xew. dëgg-dëgg ñu ni ma Sa Thiès de ay gàllaajam dañ ko di bot ko loolu moo lay wan di làmb dafa am ay tegtal Serigne Mbacké Ndiaye monsieur le ministre sunu mag ñi ngi lay nuyu alburi bi dem penn ñeema ci gënee nag ci leen mbay layti layti cikuli cikuli jiglaan jiglaan sere sere Ndiaye yaan Ndiaye bàyyi coro ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax sama mag ju baax jooju monsieur le ministre Serigne euh, Serigne Mbacké Ndiaye waaye daal Ibrahima loo mën a wax ci bis daal bisu taaru na ba pare da nga ñëw léegi ci ah, ma jukki promoteur bi. Ah. ba pare ñu continuer. Ah, promoteur la. promoteur la Yaram Aar moo tëgg euh, le 18. macha allah diggante Pam Doy qualifié numéro ma jël Yaram Aar yaa leen jiite maa ngi lay ziar nga tëgg combat le 18 Pam Doy qualifié numéro 2. xarit suñu rakk suñu jigéen di ki nga xam ne mooy Sista Fafi bi di animatrice fële ci Zik moom mooy bëre moom mooy moom moom moom drapeau bi nga xam ne Siteu bu andi moo koy bëre ak ki nga xam ne moo anta sans frontière am yeneen yeneen combat yu bëri yu bëree bëri yoo xam ne dina ca bokk incha allah le 18 mars fii di ngeen spectacle ambiance bu doy waar bu mel ni incha allah bi nga xam ne mooy Gaston production bi ma si profité aussi di félicité Gaston production bi yëpp di di di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Makan Mbengue di ko félicité bu baax a baax ki nga xam ne mooy Abdoulaye Ndiaye di aussi sama pap bi nga xam ne mooy père Ibrahima Mbaye ma koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccu waayam di ziar aussi ki nga xam ne mooy sunu pap père Sala Bigué di la jox seen wàccu waay di e bi yëpp macha allah ma leen di sant di leen gërëm incha allah. jërëjëf jërëjëf. kooku mooy Yaram Aar moo tëgg combat qualifié numéro 2. macha allah ak euh, lay doon incha allah. am na solo Mamadi Mohamed Mohamed Kanji yaakaar naa ni nag sunu mbokk yi nekk diaspora il faut nga waxaat ak ñoom tuuti il faut nga waxaat ak ñoom tuuti bu ko defee ñu xam ni ñoo ngi ci cëppaandaw li Gaston Production le Don King de l'arène le sauveur de la lutte sénégalaise dikkaat na ak ñun ci beneen affiche affiche bu nar doy waar diggante Reug Reug ak Sa Thiès hey combat de l'enfer combat de l'année muy am ce dimanche 5 mars 2023 ci arène mars la ñu wax deex est-ce que combat bi duñ ko bëree planète Mars ndax coow li ci nekk combat bi le combat de tous les dangers diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk xaalisu lamb lañ liggéente moom mi nga xam ni champion la ca MMA waaye tamit lutte simple champion la ca lutte avec frappe champion ca waaye ki nga xam ne moo di Sa Thiès koy doomi Double di rakk ci Balla Gaye ndaw ko ba bu doy waar lii production ànd ak Makan Mbeng daal di koy delloo ministre des mu di monsieur Yankhoba Diattara neex mooy dañ koy may en direct fii ci Sénégal an sor bu mag bee def loolu mu di 1xBet bu dee bitim réew nag pay per lañ koy seetaan